soxnam ak njabot gi diko ko euh, euh, monsieur le président de la république euh, président Sall ak gouvernement bu Sénégal. Euh, laata waxtaan wi ci wàllu xeex be coronavirus it ñu gërëm service d'hygiène bu ndakaaru njiit la ak moo Seck euh, ci seen i ki taxawaay ba ci fii ci kër geeg pompe gi ñu ngi leen di gërëm bu baax euh, ci loolee nga xamante ni mooy taxawaay gi lépp ba tey ñoom service d'hygiène bu Sénégal ngir xeex doomu jàngoro bi gërëm ci it major àll ngom di leen ñaax rek mbokk yi ngeen gën a ba xel jàngoro ji ci xam ne ni ñu ko waxee bi yoon mu ngi ci soppar gi ca wàll gi gaaw na lool kon ñu taxaw ca nunu mooy moytu ba yàlla ñëw moytu rawatina wàllu geste barrière yi ndax wàllu ñàkk gi moom xam ngeen ni àddina nam ci demee ak yeneen sant na sekk lool waaye te ku ne da ngay xam la nga mën ak fa nga toll ñun fu nu war a gën a mëne laata lépp di maase ci ñëpp mooy di takk masque di loxo roxo sa loxo yi moytu jotaay yu bari yi xumbaay yi waaye te ba joxe loxo gi ba ba ba jëmmi jamono euh, ci téléphone bi altine junne incha allah dañuy ànd ak euh, docteur Ousmane Gueye ak professeur Daouda Ndiaye Ablaye kon teew nañu docteur Ousmane Gueye maa ngi lay nuyu baax Gueye waaw ah, maa ngi lay fay Alaaji Assane di nuyu ñëpp di profité rek di euh, jàll au nom du ministre de la santé et de l' action sociale euh, ministre d' état Augustin Tine nga xam ni dafa bokk ci ñun. Mm-hmm. ci ñaari fànn en tant que citoyen en tant que sénégalais mais aussi en tant que membre du corps médical moom euh, chirurgien dentiste la. Mm-hmm. donc ñu ngi mm-hmm. koy jàll au nom du ministre de la santé de l' sociale. yàlla. Eh, at eh, eh, wàcce yërmandeem mm-hmm. ci kaw wàll yàlla fi jóge mm-hmm. aussi yàlla may leen xolu muñ amiin yaa waaw amiin euh, gi ak li ñu gis Sénégal ak euh, troisième vague gi daanaka euh, yëf yi jebbiwaat loolu ba yéeme li ñu dem sax ba ne pic de contamination ci wàllu ay cas positif lañ fi am démb mosu fee am xam naa ñu bañ a tàyyi rek ca xam ni daal yëf moom jéggi na dayo Euh, c'est vrai c'est vrai euh, boo xoolee dëmb vraiment li ñu am ci lim mosuñu ko am cinq cent vingt neuf bëri na mhm. euh, bëri na lool boo defee cumul bi maanaam boo boolee li ñu jot am ci semaine bi bëri na bëri na ëpp na mille et quelques cas donc loo xam ni vraiment amuñu koon sax ci deuxième vague bi donc loolu mooy wane ni jàngoro baa ngi fi. et El hmm. Hadj li gën am solo sax ñu mën koo mën a gën a expliquer. Hmm. mooy euh, variant bu ñuy wax ndax moom la wala du moom variant delta bu ñuy wax. parce que gis nañu propagation gaaw na trop wàlleem gaaw na trop surtout gaaw na ci ñàkku ñu ñàkkuwul. Hmm. Ah, études yi montré na ni bu fekkee ñàkkoo nga am euh, variant boobu mën nga wàll juróom benn nit gën saa néew. waaw bu fekkee nag euh, vacciné nga. Euh, mën ngaa am doomu jàngoro bi mais mën ngaa wàll moins d'une personne euh, donc ce qui veut dire que importance vaccination baa ngi di ñëwaat encore donc muy lu am solo c'est vrai que euh, sur le plan mondial am na tension mhm. ci vaccin mais li fi jot a am na ci nit ñi dem vacciné wu defe naa loolu lu am solo la mais leneen li ñu warul fàtte dañu warul fàtte parce que bu ñuy laam-laamee vaccin doy na wala doyul mhm. mais am na loo xam ne doy na mën nañ ko mooy masque mën nañ ko nañu tàkk masque. Mhm. mën nañ ko nañu raxasu. dëgg la man nañ ko nañu dànnante defe naa loolu moo gën a am solo. parce que tey jii première li ñu mën a def mooy mooy laay walaay wax rek vaccin yi doy na doyul mais li doy te ñu mën ko vraiment mooy geste barrière yi. Mhm. ñu ko def parce que geste barrière quel que soit alpha am na lu mu mënal euh, euh, euh, jàngoro gi. donc ñiy ñaan sénégalais yi. ñi gën a continuer di tàkk masque yi ñi ñaan sénégalais yi comme ni nga ko waxee léegi sa introduction euh, loxo nañ ko bàyyi parce que gis naa ne vraiment nit ñi recommencé nañ di joxante loxo ak yooyu mm-hmm, mm-hmm. vraiment te loo xam ni vraiment euh, baaxul ci feebar bi day gën a lawal feebar bi nañu bàyyi loolu nañu bàyyi joxe loxo asalaamaaleykum doy na sëkk ak barke mm. bonjour doy na yàlla euh, defe naa loolu kenn mënu surtout ni ma koy waxee sax ki ku téye sa loxo da ngay arrangé parce que xam nga xam nga xam nga yombul nit ki ne la jàbb loxo nga bañ waaye pour pour mettre tous les gens à l'aise vraiment sa loxo na ñu ci rek tout à fait vraiment solo top ñi joxe loxo bi ah, nañu continuer de laal suñu continuer di mhm. ak ndox di ordinaire bi solo utiliser ndox ak mhm. wala gel hydroalcoolique mais di tak masque fo nek fu waaw buñ euh, comme ni euh, président de la république mhm. rassemblement vraiment mais ku def rassemblement sax bu fekkee juróomi nit la dix personnes nañ tàkk seen masque. Mhm. mais rassemblement mën naa ñàkk ci jamono ñu toll nii wax dëgg yàlla jamono ñu toll nii euh, lim bi yokku na et bu ñu continuer nii day indi tension au niveau des hôpitaux. Mhm. xam nga tension boobu mooy problème lal parce que kenn mënul ne dañuy jël yenn feebar yëpp def leen à côté jël lal yi yëpp def ko Covid mënta nekk. waaw parce que am na yeneen feebar. donc il faudrait que ñi dimbali contenir lim bi mooy nañ ko wàññi. Mhm. nañ góorgóorlu te pour mu wàññeeku askan gi la du keneen. dëgg la euh, li ñuy wax ay engagement communautaire warul nekk un vingt mots warul nekk slogan dafa war a nekk réalité. Mhm. réalité la war a doon engagement communautaire bu waa service nationale maa ngi. profite de féliciter le nouveau directeur qui est bu mu tambali ni wax dëgg machallah mhm. il continue de wax ak population bi di dugg ci eh, biir askan vraiment je crois que ça c'est important il faudrait engagement communautaire bi ñepp di tuddu fu nek fo tourné ñu nan la engagement communautaire C'est de mu une réalité. Mhm. cest un vécu quotidien. ku ne xam man. communauté ci communauté bi laa bokk mais d' abord suma devoir citoyen moom mooy préserver sama bopp préserver sama samay samay euh, sama askan hmm. je crois que loolu bu ko ñëpp intégré Eh, vraiment dina dina indi vraiment na positif ci nit bi dëgg la euh, tere yi fi woon aussi ci wàllu masque yeeg yenn bërëb bi moom ñu ñu daal di ko gën a euh, dekkilaat rek maanaam yenn bërëb bi moom qu'on qu'on soit très rigoureux bañ koo maslaa benn yoon banque yeeg bërëbu ndajukaay ku solul masque ñu dàq la mu mm-hmm. ci gàttal mu gaaw xam nga mm-hmm. Sénégal aussi maslaa gi dafa bari da ngay dem ba ni ñun est-ce que li ñuy wax sax ñun gëm nañ ko ñun suñu mm-hmm. bopp parce que nit aussi li ngay wax day dëppoog la ngay doxee tout à fait tout à fait. muy ñu bind ay textes rek di di di di di dajale ci duñ ko doxale muy les places publiques muy marché yi muy ci grande surface yi. Mhm. ci transport en commun. il faut que les gens soient intransigeants et en en plus de cela ñi ngi lancer appel aux forces de l'ordre ñi ngi liggéey liggéey nañu macha allah vraiment depuis euh, euh, euh mars daw ba légui ñi ngi ci mais nañu gëna a contrôle gëna mhm. gën contrôle bi appliquer hein,

du ñëppay évoluer vers des cas graves mais dina am pourcentage bu évoluer des cas graves. bu cas grave bu amé une saturation au niveau de nos lits de réanimation malgré les efforts qui ont été faits ñëpp xam nañ ne effort selon am solo le ministère de la santé pour vraiment des lits de réanimation y pour yokk effectif en termes de ressources humaines mais aussi loolu mënta wéy continuer continuer c'est pas possible il faudrait que nous ñu góorgóorlu euh, mbir mi bañ nous déborder ñu góorgóorlu personnel santé baña am li ñuy wax burn out mais en plus de cela bañ nekk dans une euh, situation de tension permanente mm-hmm. il faudrait que loolu ñi moytu ko pour ñu moytu ko nag Alaaji Assane amul mille chemins mm-hmm. amul mille chemins mooy ñi war a vacciné wu nañu vacciné wu mm-hmm. ah, mais ñu vacciné wu ak ñi vacciné wu ñi continuer di observer les gestes barrières loolu defe naa c'est fondamental il faut que nit ñi comprendre ko noonu nga vacciné wu warulaa tee tàkk euh, tàkk masque nga ñàkk vacciné wu warul laa tee takk masque. donc non justement moo tax su ma sañoon man vraiment. Uh-huh. communication bi euh, côté geste barrière bi yóbbul ko. yóbbul ko uh-huh. ñàkkee gi. ñàkk yi doyul ñàkk gi dem nañ uh-huh. bañ naan même deuxième dose sax léegi doyatul et cetera. nanu gën a insister ci geste barrière yi. c'est ah. fondamental. nit doo nax sa bopp lu matul ci yow da ngay def la nga xam ne mooy première barrière ya ñun masque la ñu am ak raxasu mu set wicc ak dandante bilaay alaaj asan vraiment <laughs> loolu daal la nga wax moom mooy téere ah. mooy téere bi amul leneen mm-hmm. gouvernement bi góorgóorlu di indi ay ñàkk mais ñëpp xam nañ ne vaccin tension bu nekk sur le plan mondial mm-hmm. donc comme ñun produire guñu ñi ngi ñaan yàlla produire comme eh, président nu mu ko defee eh, eh, pour 2022 mille vingt deuxième semestre bi ñu commencé produire suñu vaccin mm-hmm. alhamdulilah yàlla nañ yàlla matal yéen a ngi <laughs> ah, mais nañ régler 2021 mille vingt gi ba pare njëriñ loo fekkee nañ fexe ba Euh, lii may wax naan jàngoro ju nar a décimer àddina. voilà mais pour le moment comme am nañu geste barrière. <laughs> Hmm. am nañu continuer ci geste barrière. voilà très bien appel nag aux bonnes volontés aussi. ñi hmm. di dimbali néew ji doole yi ci masque yi. ministère de la santé mu ngi def kent kenn kantaanam mais mënta jël ne hmm. en charge tous les masques du pays c'est pas possible. dëgg la donc il faut que les bonnes comme ni ñu ko defee woon vraiment ñu ñaanaat leen. ñi gën a dugalaat seen loxo ci xeex mi. Mhm. may nit ñi ay masque may nit ay gel may nit ñi ay dispositif de lavage des mains. Mhm. loolu bu ñu ko defee vraiment y aura l'implication de tous les citoyens. et je ah, pense am na solo ca ca ñu gën a tàppe xol yi départ ca xam ne ñun ñëpp bàyyeeku gi bu kenn xas sa morom àddina ñoo yaakaaroon ni yëf yi dem na rek. waaw comme jebbiwaat na nan ko ni jàppee nii rek ci départ bu ñu jëlaatee départ ñu ñëpp xëy nañ daan ko mais bu ñu fi nekkee def ay polémique yu ñàkk fayda yoo xam ne ba mu ba mu yàq sunu askan wi fu ñu jëm voilà hmm? amul amul benn njëriñ. amul njëriñ amul njëriñ su mel ni daal nañu aar suñu askan. très bien suñu askan nag mooy dañ fi am as dose nañu dem vacciné wu. Hmm. mais li ñu am moom mooy masque nañ ko takk nañu raxasu. très bien ah et puis ñëpp jàpp ci et waxtaan euh, li ngay def ne ak Assane je ne cesserai de le dire vraiment de la féliciter de encourager. ñaan ci mm. parce que ñun des acteurs de communication mm. des acteurs de sensibilisation. sensibiliser la population sénégalaise. docteur Ousmane merci professeur Daoud Ndiaye ñu ngi lay ziar professeur. ngi ngi di euh, constat bi seetlu gi benn la de 529 cas positifs d'EMBA waaw maa ngi nuyu askan yëpp maa ngi nuyu également docteur Ousmane bi génn léegi. Mhm. également profité comme topp ci li nga wax rek euh, euh, jaale euh, ministre Augustin Tine. Mhm. ci ci ci doomam jooju yàlla xaaral ko àjjana. amiin jërëjëf. oui te te Elage. parce que ñun dañ koy wax tuuti gis nga 529 yi. Mhm. wala 500 yi quelque. nañu jàpp déjà que parfois caprice sous-estimé mooy lan. am na koo xam ne am na ko te demuñu dépisté ko. am na koo xam ne am na ko. te feeñul ci moom demul. donc pour pour un peu alerter par rapport ak suñu tollaat mooy mooy bari na. raison pour laquelle gis nga euh, li ñu yàgg wax rek la ñuy rafetlu waat gis nga pour man élage hmm. moom nga mujjee daaneel. Euh, euh, polémique bi ak débat bi jaratu ko ku nekk xam nga li nga def. Hmm. ku nekk xam nga tey li nga war a def. dëgg la c'est important on n'a pas hmm. besoin de. donc su pour moi, encore une fois li wax huit mois à un an c'est pourquoi cette euh, émission euh, communication c'est important premier vaccin mesure barrière. Mm-hmm. masque bi. la rassemblement jamono toll mm-hmm. cest que kuñ ci euh, parce que ku parfois surtout des rassemblements dans les lieux fermés. yaa ngi wax ñu ngi wax léegi ci affaire banque yi. Mm. banque yi responsabilité lépp luy lieu fermé parce que du ñu nangu ñoom ku leen indil ay yoo xam ne. mu ngoog surtout ça. c' est important et c' pourquoi yaa ngi ko tudd léegi euh, loolu ku def leer dañ ko lu baax dañ koy félicité service d'hygiène loolu ñu def. Mm-hmm. c' parce que mën nañu jouer ñoom te je sais que s'ils ont assez de moyens et c'est là où j'interpelle aussi également l'état xamna ñu ngi dégg wala déggu mhm. ñu ñu ne lu ñu mën a service d'hygiène nañ leen ko dolel jamono ji surtout euh, euh, parce que ñi ngi ci ci ci saison de pluie ñi ngi ci ci ci ci ba léegi école bi tëjuwul mhm. donc c'est extrêmement important jamono ji ñu may leen dolel lu ñu mën a pomper école déjà bépp barab boo xam ne nit dañ fay rassembler bu leen ko mën a dimbali ji dimbali ko ñu pomp ko ça permettrait au minimum dina régler cinquante pour cent des problèmes en tuant le virus ci boo xam ne mi ngi ci air bi wala mi ngi dans des lieux cachés. Mm-hmm. donc loolu on on insiste donc bu baax ñu féliciter encore une fois. donc également ku ci nekk sur également yaa ngi ci yaa ngi service d'hygiène. te jàngoro ji loo xam ne tey ñëpp gis nañu ne gis nga encore une fois bi muy ñëw Inde. nit ñi gisoon nañu ah comme que parfois na du ñu jàngat dara. bi mu ñëwee Inde li mu doon li mu def Inde ci ci musiba. Hmm. ñëpp ñu ko doon gis. mais léegi aujourd'hui li ci am mooy ñu xam ne donc tey xam nga au départ dañ doon wax ne mag ñeek ñi am comorbidité. variant bi en tout cas li ci rapport yi jox ñi nga xam ne ñoo ko gën a dund. Hmm. même ndaw ñi sax ñoo apparemment ñoom la gën a sonal moo tax Inde mu def ko dégâts yu fa doon def. c'est vrai ils ont parlé de cinquante huit pour cent yi ñu seetlu ah. ñëpp euh, ay quarante ans jëm kaw trente quelque trente cinq quarante donc bion euh, yoon jeunes yi la malheureusement et malheureusement jeunes le la la mhm. et c'est pourquoi aujourd'hui c'est amul Mak amul ndaw képp koo xam pour pour man euh, première li ngay lijjanti mooy mesure barrière Et képp koo gis loo xam ne jamono yi sa la sa yaram sutante na li ngay njëkk a def mooy xoolal kër docteur. day rek mhm. deux problèmes. Mhm. dina la permettre yow nga sauver sa bopp dina permettre yow sa waa kër virus bi dafa law rapidement parce que li muy gaawee raaw gaaw dafa gaaw. maanaam li nga bëgg a wax professeur mooy ku ñuy toog ne damaa siburu wala dama dama grippe fan yëpp nañ daw rek daw dem def test yi. daw directement hôpital. Mm-hmm. parce que Ousmane wax na ko léegi gis nañ ne kër gu mu dugg. Mm-hmm. dina fa def njombe. te njombe nag xam nañu loo ça veut dire quoi. bu dee ku ñàkkuwul gën caa gàtt dina juróom-benn yeneen. dina benn yeneen. te te boo ñàkkuwul également xam nañu ne conséquence pour le le li ñu naan le pronostic vital booy li ci olof ni comme ni. sa sa bakkan nag ci na ci dafa yokkul trop. Mm-hmm. ba ba pratiquement ay soixante quinze ci quatre vingt pour cent. Ah. donc pour yow nga sauver sa bopp tey. mu amul comorbidité amul amul kenn ñëpp la boo yaram sudante dawal kër l'hôpital wala nga oote ñu wax la li ngay def. Mm-hmm. mais li ngay njëkk def sa kër mooy takkal sa masque isolé wu sa bopp. ba yow ba nga def sa test ba ñu xam lan la booy booy évoluer nga évoluer même bu dee da ngay liggéey. Mm-hmm. boo def sa sa bérébu liggéeykaay nga leen sama yaram dafa sudante mënumaa liggéey si parce que yaakaar naa Covid la képp koo ne Covid la duñu la laaj certificat médical. Hmm. wala boo ñëw boo nee xaw ma lan la. te également ñu la lancer un appel à au au ñi nga xam ne ñooy liggéey. si borom euh, kër yi di jiital kër yi. Hmm. jamono ji ñu toll bu ñu déggee ne seen personnel feebar na wala ñu yëg ko ñoom nañu def seen lu ñu mën a xam nañ ko ne mu toog këram. Hmm. ñu conseillé ko mu dem wuti test mu def ko. pour aar bërëb milieu, mais également aar ça c'est aujourd'hui moi ce qu'on appelle la lutte et l'engagement communautaire. oui oui. Hum, hum. c'est important. mais mais euh, surtout surtout jeunesse bi je pense que aussi il faut que ñu xool ci ci wàllu communication bi nees moo def ba gën a jël projecteurs yi euh, jëmee ko ci ñoom communication boobu ci moom sax professeur xam naa ni at at bari na at a genn wàll bari na gars yi sonn nañu euh, sonne na nu ne waaye nag loo xam ni moom pexe amul euh, pour man nag dañ <laughs> naan wax yi jamono bu bu bu liggéey amul jeunes yi découragé ma ne sama benn xarit doo xaru comme doo xaru nag li fi des mooy ñëw ñafe ko rek ba keroog yàlla yi ñëw euh, xeex bi mënut ta taxaw. <laughs> El Hadj yow mii xamuñu waxtaan nañ suñu biir. Hmm. ñun ñëpp sax demoon nañ ba ne ah comme mbas bi ba ku ñaaj ngeen ah xanaa kon xanaa benn ak même bu ñu ko bàyyi benn yoon. ñu ñu wàññi ñu wàññi ñëpp yow wax nga ci lu bari. Ah. yow a yow <laughs> mais tey amuñu choix bi aujourd'hui choix amul. <laughs> amul choix dëgg la parce que euh, bu bu li nga waxaat bu guerre jotee ñëppay jugaat. tey loolu mm-hmm. tout ce qu'on a fait on reprend a zéro malheureusement. on reprend à zéro. Mm. donc euh, euh, ce qui fait pour man ñu ngi dem école bu tëj hivernage yi dem xale yi dañuy def li ko defal ay ay ay nawetaan. Mm-hmm. moi je pense que mën nañu mën waxtaan à travers seen nawetaan. xale yi bu nañu porter communication bi. Mm-hmm. parce que ñëpp xam nañu xale lu mu jël communication lépp lu mu jël ko xeet boo bu amul victoire yi li ñu bëgg dañ ko am. Mm-hmm. donc les les présidents d'ASC les entraîneurs ñu ñu xool lu ñu mën a defee ba nga xam ne au niveau de chaque quartier. Ah, au niveau de chaque équipe ñu sas benn xale ne ko yow demal tey nga def wax communication wala ñu def ko pencoo ñoom ne ko pencoo mhm. comme ni ko ñëpp di defee mais xale yi forcer la communication aujourd'hui sans sans les jeunes cette communication d'abord parce que ñoom cible lañu mais deuxièmement ñoom fi seen wax mën a toll doon jot ak ni ñu ko mën a jàllalee et surtout ñu dimbali ñu même même que ces jeunes euh, envahissent les réseaux sociaux xale yi mhm. dañu envahir réseaux sociaux yi am nañu pouvoir bi je sais que tey bu ñu bëggee jàllale tey dara avant suba ci guddi lépp dina jàll donc on connexion euh, tout à fait que le contenu change un peu quand même au moins mu doon luy le doon luy luy social. oui pourquoi pas comme profil ce profil. parce rien du tout page bu ko defee aussi ñi nga xam ne xam nañu experts yi def ay vidéo yoo xam ni même bu doon deux euh, minutes cinq minutes sànnil ko askan wi ñu ñu jariñoo ñu jëriñoo mm. ñu waxaat également comme comme variant bi lu bees dafa am lu bees lu ci nekk mm-hmm. ñenn ñi peut-être jotuñu information pour ñoom boo waxee ñu ne la covid bi fi nekkoon ba léegi la alors que variant bi ni muy gaawee moo doy waar ni muy rawàllee moo doy waar te bàyyiwul kenn te dafay faat lu gaaw. Mhm. donc loolu information yi dafa war a génn élarg. Mhm. genre communication xaw ma lu ngeen ko mën a def. mais il faut que ces paramètres là sortent au niveau de vos médias. Mhm. mooy wàllaay bi gaaw na mooy bàyyiwutul xale yi a sonal. na. et que li fi nekk tey. quel avec ou sans vaccin mooy mooy port de masque lavage de main gis nga loolu tey dafa war a nekkaat slogan avant chaque émission bu ngeen mën def li nga doon defee dëgg la comme gan gi daa gën a soxor dafa soxor doy waar te te nag encore une fois te nag li ñu ci xamul mooy li ñu ci xam encore comme ni ñu doon wax au départ rek li ñu xamul moo ëpp li ñu ci xam. Hmm. les gens disent que même au niveau des vaccins. oui am na ñu nga xam ne ñu ngi créé vaccin ñu ne woon deux doses la. te hmm. El Hadj ñooñu doon defar vaccin yi nee nañ ñoom sax même seen deux deux deux doses sax duñu xool est dañ ko yokk. ñu def ko troisième. pour dire quoi que y' a beaucoup d'inconnus li ñu bëri xamuñu ko ci virus bi loo xam ne xamuloo ci lu bari.

jërëjëf El Hadj gis nga da nga réglé lu bari encore ci wax jooju mooy boo fàttalikoo yàgg nañ waxtaanoon nañ ci mooy ce qu'on appelle les maladies de mains sales. Mhm. loolu la ko tubaab tuddee. du loxo bu seltee. Mhm. mais nga laal lu set lu setul. wala nga nuyu nit mu yore dara. lu bu la ko wàllee jox la ko ñu ne lay maladie de mains nga dugal ko sa gémmiñ ñu ne maladie de mains sales. Mhm. donc tey jamono ni mu tëddee ni ñu ko waxee mooy. et on l'a xam nga même bi Covid bi génnee ñu naan même bu dul Covid bi masque yi day lijjanti lu bari te fi ñuy jëm. xamuñu lan la aduna noonu la sopp dafa tëddee. suñu toll gis nga li ci xew ci àdduna. Mhm. mooy jàngoro lëmbëri àdduna. oui te ñaanuñu ko yàlla. mais aujourd'hui il faut que comme tu as dit les changements de comportement. Mhm. loolu dafa bokk ce qu'on appelle l'éducation pour la change. Mhm. les changements de comportement positif mooy ku ci nekk nga def loo xam ne moo lay amal njëriñ mais surtout en matière de santé lu lay aar. te képp moom képp moom élage. ah mënut a ñàkk de set moom vraiment dafa neex sax mais mais nit euh, ñu aussi bu nu nangu kenn <laughs> ci waxin rey leen de waaw boo fi toppee sa kerse aussi nit ñi ñoom dañ lay nuyu dañ lay ñooxu <laughs> yaay moytu de il faut dawante gi moom léegi nan ko nan ko ne xamee de mënut a ñàkk de. <laughs> surtout que li li ñu amal moom. Hmm, hmm. bi ñu naan ah, moytu de. bu bu yàlla mayoon nit ñi ba ñu gis seen hmm? mu xaw mu def li muy def nii. non c'est extrêmement c'est extrêmement grave et là c'est pourquoi encore une fois nous man de suñu doon man ci par rapport à ce à ce à ce. waaw mais nak je pense que li mom buñ ci joggé xamna ni digënté bi sax wax fi nit ñi dégg la du yomb ndax nit ñi xaru que lañ talak ay mumbay ak yooyu mais vraiment war nañu changer taxaway gi commencé ko ci kilifa yi ñu nangu ne. ben instant virus bi xaw da la na ndax da no danoo ci doxalin meeting yi ak mumbay opposition notamment le parti au pouvoir société civile ñi fi doon woté ndaje yépp ku ne boo wéetee nga ni ah njuumte am na mais ñu départ façon wu départin woo xam ni ku ne di nga xam ne léegi xeex xeex jogaat na. c'est pourquoi El comme ñun ñëpp comme on l'a dit ku ci nekk est responsable de cette situation mmh, mmh, mmh. par man commençant par ñun. mais comme tu l'as dit commençant par nguur que bu dara baaxee dañ naan nguur gi la bu amee problème mais forcément lii di il faut que ñu ñu ñu xeexeex ba pare soog a jublu suñu biir léegi. balaa balaa jëm El Hadj moo tax ma ne comme ñun ñëpp on est responsable. mais ku nekk ci ñun nag war ngaa taxawaat également. oui jël xeex bi mu ci xel. Mhm. c'est-à-dire que bu xaar ne xeexu kële la. xeexu kële la non nous sommes tous responsables. dëgg la donc ku ci nekk na faram ses responsabilités. te xam ne Sénégal ñun ñoo ko moom. c'est-à-dire que te te ce combat doit être un combat de d'engagement communautaire. oui du du xasaru kër docteur Cissé moo tax ñu ne combat engagement communautaire la. ku ci nekk jàppal na ce rôle bi ñu ci war a jouer c'est un rôle extrêmement déterminant par rapport à ce but là. dëgg la bu ñu demee également ba combat bi jeexaat. ñu xool lu ñuy defaat mais fu mu toll nii lenn benn préoccupation la ñëpp war am sénégalais yi mhm. comme loolu ànd na amuñu beneen ñu war a def mooy comment faire pour maîtriser que yëf yi wàcc bu baax insha allah amul amul mhm. am leneen dëgg la mënatul am leneen dëgg la am débat yenn yi mënatul mhm. am yi le combat est là pour sauver les sénégalais bu soxla nekkee ñaar wér a am <laughs> benn soxla la fi mu amul beneen moo tax ñu yaay wax tabaski c'est vrai mais li ñu naan bari nga naan am neefa. Hmm. aujourd'hui nañu rek la sunu bakkan bi ba pare. parce que yàlla moo yor bakkan moo yàlla yàlla bay sa tool. yàlla yàlla bay sa tool yàlla da ngay dimbali la ci. Hmm. donc te encore une fois ñu ne la lii mooy danger bi nga naan yàlla dafa foofu mën na poser problème. Hmm. defal li ngay def. te mu la mel boo ko defee. yow mën na la sauver am na am na yi. yoo mm. xam ne ñu nga France ku mel am na ko ko bay. oui moom solo dëgg la mu mm-hmm. ngi parce que foofu la gënoon a bëri. ah oui dëgg la exemple mënu ko a euh, euh, mm. ñàkk jërëjëf. jërëjëf professeur Daouda merci Ndiaye ñu yendoo jàmm am na solo geste barrière yi kon ñu gën ci bàyyi xel <laughs> ablay Diop waaw masque bi noonu la de langalal de si buru sax daa àndul ak wër xar boo amulee kàttan gi doo am mën a dem daral ba borom kër yi laay waal moo tax fajar la ñëw takk maskam que <laughs> nag njawee ni eh, boo si buroo say tànk damm ah njaga

nañ moytu rek ca di wéyal ñaan yi suñu kilifa diine yu baax yi ñu leen di ñaanal yàlla yàggal seen taxawaay di taalal suñu yoxo ñoom it lu ñaan doyul incha allah 88 628 14 14. asalaamaaleykum El Hadj Assane Gueye. waaw. maa ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay di am kontante. Martin ñu ngi lay delloo ziar bu baax. xam nga ñun bu ñu la lay déglu rek suñu xol day seet xam naa mm. dinañ na affaire yi gars yi picc la ñuy def boo fa nekkul sax ñun duñu dugg. dama la koy wax nag. da nga baax rek <laughs> Martin buñ la nag affaire nitu Thiès la buñ ko wax loolu. Mm. ah nuru nuru na ko nag <laughs> del dugg waaye del dugg saa su ne. <laughs> mais ñu ngi lay ziar di la bëggee nag. mais jërëjëf jërëjëf. mais Pape Cheikh ngi lay denc benn mbakus bu garaaw ah. ah. ah yow bàyyi noppi rek yow ba ci ba bàyyi looy avant tabaski bi dina baax. mbaxus kenn du ko denc da ngay bett borom dóor ko ko rek mu gëlëm waaw ah, bàyyi leen denc gi nag. <laughs> mais yaa ngi waxtaanee lu am solo. su uh-huh. ma dégg sa kàddu nga wax man da nga maa wax dafa mel ni da nga maa waxaale munoon naa bañ a dugg sax. Uh-huh. parce que ba fi mbas bi ñëwee. position yi ñoo njëkk a génn di marche. Uh-huh. di def le dessin rassemblement. le président de la république moom tamit génn def ay tournéem kon ñoom ñoo waroon a njëkk a joxe un bon exemple. Alaaji Assane parce que mbas bi jógewu fii ñun nag population bi ñoo war a xam suñu bopp ñoo war a jël suñu matuwaay mhm. parce que ñoom danañu jël seen matuwaay ba mu mat sëkk nag Alaaji Assane mhm. mais ñun tam nañu jël suñu matuwaay ñun artisans yi nag mu ñëwaat arrangé wu ñu ku ne xamoon na ne artisans yi amoon na dund mhm. gu métti ku loon xëy huit heures wàcc vingt une heures ñu ne la huit wàccal huit wàccal deux heures doo am loo yóbbu nit ñi di da daw kon nag ñi ñaan mbas bi na fi jot nañ gaa takk seen masque dem ñàkku ji Alaaji Assane man jël sama deuxième ba pare di takk masque kon maa ngi ñaan askan nañu takk masque di nuyu nag koo xamante ne mi ngi jàppale artisan yi mhm. muy assistance ministre de Faba Amadou Ndiaye vraiment mi ngi ci jàppale artisan mhm. ci formation parce que keroog madame Diagne gis nañu merci madame Diagne sama xarit la madame baax la sa xarit la <laughs> baax la waaw nit ku baax la ku mhm. woyof la mhm. parce que dafa yërëm artisans yi xam nga lu tax ma lool loolu waaw keroog DER def nañu financement ak DER sept milliards ñu yokkaat ko mhm. lépp ndax moom sonn na ci trop ñu ngi koy ñaanal nag ne ko nag artisans yi ñu ngi si ginnaawam ah, wasalaam jërëjëf am na solo loolu jërëjëf Martin jërëjëf euh, ñu ziar euh, di jaale suñu xarit Boy Diaw Boy Diaw vraiment sama wëllëre la euh, wëllëre émission bi di daan dugg ak xalaat yu macha allah moom dafa ñàkk frère am nag ñu ngi koy jaale di jaale njaboot yëpp booy Diaw 88 628 14 14 asalaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam. El Hadj Assane. waaw kooku. Martin de Mbaxus moom waroon na ko wax rek. ah may yow xam yéen daal yow xamuloo sénégalais ba tey man man ak yéen duniyaa ba léegi gis nga sénégalais boo lay dig ba lam la doon dig du dootoo ko jariñoo. maanaam boo soxlaa xar tabaski mu mu bàyyi ba tabaski passé mu indi xar ma. mu indi la xar bi non non ñun nag ñun nag ñun nag ñun nag El Hadj duñ doxe noonu. Ah. ñun duñ doxee noonu ñun ñun ñun waa Thiès ñun duñ doxee noonu. vraiment ah, kon ah, kon Thiès day am banquetul léegi banque te dañ na fa. <laughs> non du question ñàkk banque sax mais am jom rek jom rek. waa joxe da ci xol la moom du du bari le am na ñu bari am na ñu bari le lool nay lool te duñu te duñu joxe te duñu joxe. <laughs> dëgg la. mais ala yaram. waaw kay bisimilah. Euh, Fatou Diagne mi ngi yóbbante sa nuyoo. Ah, jërëjëf maa ngi koy ziar ah jërëjëf Fatou Diagne euh, moom sër ci Adjortu Malène Diagne. ñu ngi leen di ziar baax waay. soxna docteur ñu koy jaar baax a baax ñu ngi leen nuyu yóbbatee yow chaque jour bi laay teew. leen di delloo ziar. mais alaay Assane. Mm-hmm. di wax ni euh, gis euh, feebar bi. suñ mm-hmm. toll nii nii nii tembe. waaw ku ci nekk yaa war a jël say say say responsabilité. Mm, dëgg la dëgg la. parce que tamit affaire bi am na amati amaat. Mm. kon tey jii defe naa ni képp koo xamante nii. nekk nga ci réew mi. Mm. yaa war a aar sa bopp bul xaar ñu naan ay rassemblement ay ay mm, demee noonu. fooy dem takk sa mm. masque jël say garde. jëf sax moo jot jamonoy wax sax dafa dafa am mais dafa naa ne léegi jóg jot na jóg daal moo moo parce que tamit ku nekk yaay aar sa bopp de. Mm-hmm, ku nekk yaay aar sa bopp booy dem fenn nga jël sa masque nga takk. Mm-hmm. jël say li nga xamante say jëm say jumtukaay yëpp nga yóbbaale ko foo mën a dem. parce jii boo feebaree yow rek yaay gaa yaa maa la ko wax tey tamit di wax surtout ci li nga xamante ne mooy daral yi Hmm. foofu nga xamante ni hygiène dafa am en général te bàyyi rassemblement ban ñu bàyyi xel trop parce que foofu tamit lu ëpp ci ay danger fa la nekk dëgg la dëgg la am na solo beneen hmm. <coughs> waat convention bi nga xamante ni hmm. le ministre de la zone ak DER signé nañ ko nga xam ne fan yi passé loolu def naa ñu yëg nañ ko muy loo xam lu ama am solo la ci artisan yi tey jii def naa ni li nga xamante ni ki gën a gën nag mooy mooy mooy mooy mooy euh, secrétaire ministre bi vraiment mi ngi ciy liggéey liggéey bu am solo. Ah, ñu ngi tamit. madame Diagne kon euh, taxaw na foofu ndax. Euh, non madame Diagne gaa ngi koy souligner rek. <laughs> non macha allah macha allah macha spécial à madame Diagne. Hmm, vraiment mi ngi liggéey liggéey bu mucc ay ci dëgg nag ci dëgg la ko teg. Hmm, hmm. te loolu def naan moom la ministre bi soxla. li tax mu tànnoon ko li tax Macky Sall tànn kii docteur Ndiaye. loolu moo tax docteur tànn madame Diagne. te vraiment loolu mu ko soxlaa information baa ngi daw ci nit ñi. vraiment ñu ngi ko ciy gërëm bu baax a baax di wax ni nag. mais merci formation yi ñu ngi ciy incité pour formation yi tamit nit ñi gën a am formation financement yi mën a ñëw nit ñi mën a liggéey Sénégal soxla. feebar bi nag El Hadj Assane. yow dañ la ciy gën a jël jaajëfalaat parce que yow xeex nga ba sonn nit ñi nañ la dimbali nag nañ la dimbali. te takk masque yi ñu ngi dimbali El Hadj Assane merci beaucoup jërëjëf jërëjëf <laughs> kontaan naa di gërëm artisanat Thiès yëpp wax dëgg yàlla ñoom ñu émission bi lañu yëf yi moom dimbali sa bopp la de xuma la alaaj Assane sax waaye bañ dee wax ci njëlbeen ñu dimbali président Mbass yi ma ne yéen daal yéen a juum nag <laughs> dimbali président fii ku ne sa bakkan la de boo tëddee ca hôpital ba de yaa fay tëdd kenn du la fa tëddal amul lii de substitution <laughs> kaay tëddal ma fii ma dem doxi soxla bi ñëwaat kon yàlla na yàlla sàmm ñëpp waaye ndimbal da cay fekk loxol borom waaleykum salaam. Alaaji Assane ñu ngi lay sant di la gërëm. sa taxawaay ci Sénégal alhamdulilah jërëjëf allah am na yàlla defal fan bu gudd ànd ak wér. ñu bokk lépp sëñ bi. barke yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam. man de Makhtar mooy woote waa Malem ah. Odar yi rek. waa Malem Odar. <laughs> waaw ah, waaw tey moom dañuy dañuy yaa waxoon ku gis lu baax na wax lu lu baax la. waaw. waaw dañu gis benn ndimbal wax dëgg yàlla bu ñu fa def temps borom kër yi ñu bari ñu dox leen ay deux cent mille loolu ñu ngi koy rafet lu baax. macha allah. waaw kanaa li ñuy ñaan yokk ñu yokk ko rek yaatal ko xamuloo ban xeetu eh, nature ban dimbal la ci kaw lan. waaw dégg naa ci gouvernement bi la de. Ah, ci gouvernement bi la. <coughs> waaw am na solo loolu am na solo. léegi nag bu ñu sañoon nag ñu yaatal ko ñëpp. Mhm. Ah, xam nga béykat heure bi sàq yi day jeex. waaw waaw. te sept mois sur sept mois daanaka du liggéey. trois mhm. mois yi la ñuy liggéey ñu doon ñaan nag. Mhm. béykat yi heure bi duñu ñuy sonn wallaay. amuñ indemnité amuñ dara ñu gën ko yokk rek. dëgg la ñu am ndimbal lu lañ dëgër ba fekkee rek. tool tool yi di ñor hmm. ba tool yi ñor. xam nga loolu day jafe. incha allah la. waaw ñu ngi koy ñaan di rafetlu nag. Hmm. ñu bañu fàtte yoon yeeg yëpp laa la. tali ñu lay sant di la gërëm nag dégg nga laaj. jërëjëf Diop jërëjëf Diop 88 628 14 14 RFM rajo Futur Média asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. bisimilah. waaw sëriñ bi. Allô? allo dafa dem 88 628 14 14 RFM gërëm bu baax équipe sport bu RFM bu groupe Futurs Médias yëpp ci euro bi ablay. <laughs> euro bi nak mom, final bi lay soog sétane. <laughs> Dembu dal ablay la gor gorul sétane Italie fàttali ma sax benen équipe ba Italie. Angleterre voilà mais vraiment ñom Malal ñom Cheikh Tidiane Mam Fatou Ndoye Malick Thiandoum Kulim Djouma, ah ma Cheikh Tidiane <laughs> def nañ liggéey bu am solo Tassirou Diallo eh, ñom Tala Fall les consultants Mom Thioune et cetera vraiment machallah, machallah, le groupe Futur Média Abdou Diouf Junior Fiti, ci etc. gi ah, et cetera Youssouf Bodian asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. ñu ngi lay ziar bi. sëñ bi mooy ziar ñëpp di nuyu waa RFM yëpp. jërëjëf waay bisimilah. leen ñaanal jàmm. amiin ñaan yàlla yàlla na yàlla yokk tawféex yeeg wér gi. amiin yaa rabbi ñu bokk lépp. yàlla defal leen jàmm. Sénégal gi ñu nekk yàlla fi yàlla yokk jàmm. amiin yaa rabbi. waaye sëñ bi. Mhm. ku la ne sangul sa taar la bëgg. dëgg la. réew mi dafa toll foo xam ne fii ñi kenn ñemeetul wax dëgg gi. Mhm. yéen a ngi wax léegi waxi feebar maa ngi tudd Alaaji Cissé dëkk ba Morolan. Alaaji Assane. waaw. booy woote sangu di woote faju hmm. day fekk yow miy woote nga jiitu te paj te paj ma. waaye mais ñun ñun ñii ñu jiite tey. Hmm. bu ñuy woote tey dajale ay mbooloo feebar bi na ci dëkk bi di yokk chaque jour que jëfee. Hmm. waaye ñun fu ñu jëm. na lol de moom doy na war. sal hmm nañu wax li am. deug la nañu baye mbolo mi politique bi bu mu jar bakkan. Mhm. dara jaru ko fi. ah ci sama gis su bop deug la. bu dee yalla rek tax ñuy def nañu def ngir yàlla. faj mhm. ngir yàlla. hmm nit ñi rassemble leen faj leen. nee na dem ci hôpital yi faju mo gën ñuy wote ay meeting. deug la di jël ay nit di yobbu ku man ma yore jàngoro bi wàll na ko sama waa kër fu ma jëm. Mhm. asan. ok defe naa dootul amati de xanaa fii fii ñu toll nii dootul amat dinañ ko dakkal laa foog loolu moom yanul maanaa dootuñ ko de laa foog. Mhm. fan lañ koy dakkal saa yi ñu yeewoon ne nañu daje tey fii fële suba ñu ne Kër Massar ginnaaw suba Kër Momar Sarr. Mhm. ginnaaw di suba ñu ne Morolan ba benn waa Ah ñoom ñii ñu war a faj. Mhm. ñoom ñii ñu war a aar ñoom ñii ñu war a digal ñoom ñooñu ñooy woote rassemblement. ñoo war a wane yoon wi nag. ñoom ñoo war a yoon wane yoon bi du ñu wane yoon bi ba mhm. pare li ci gën a grave mooy asan mhm. ñoom du ñu takk masque. te ñooy digle takk masque yi. déen waay ah, il faut ñu jubbanti ko nañu jéggal nañu baal li ñu nekkee du dëgg nañu waxante dëgg. non il faut ñu jubbanti ko incha allah dëgg la. bu ñu topp suñu bakkan àddina bi dafa jeex ba pare. toogal xaar sa wàll moo fi ne. ci yàlla noppi na dem moo xam kii falo kii fekkee. kii jël <laughs> billaay jërëjëf jërëjëf. Cissé tawal jàmm. alhamdulilah jërëjëf Cissé ñu incha allah dina dina dakk loolu. parce que lu yenu maanaa ku ne xam nga ko ku gis nen na nen a ngi kilifa yëpp xam nañ li ñu def nan ko fi yemale nag vraiment mais sénégalais yi xam ñoom it li nu bëgg. waaw tey moytu ku ne sa bakkan na fii boo fi nekkee hôpital say mbokk yi jaabante hmm? indi añ reer ndékki jaabante yi transport bi jamono neexul nga xam sa bopp rek di ñaan nag foo toll yàlla sàmm la yow jërë ngeen jëf mbokk yi ñu yendu ak jàmm.